njaaram lañ jógee njaaram Kër Cheikh waaw Kër Cheikh waaw. Euh, Kër Cheikh am na Xadi Fall fu ñuy wax euh, euh, Madinatul Munawwara foofu lañ jógee Kër Cheikh. ñuy saar baax sant nañu baax nag suñu Aziz Fall Modou Moussa Fall maanaam maa jërëjëf Fall. waaw liggéeyal maam Serap Fall loo xamante ni maanaam sëñ Touba moom moo ko joxe woon ñu ci liggéeyal maam Serap Fall rek sàkku yi dara lu dul ngërëm kese rek Fall ngërëm kese lañ ci sàkku barke maam Serap Fall ñaan sëñ Muntaxa suñu borom yàgg ko fi loolu te ànd ak di ñaan tamit suñu jëwri si ñam da Xadi Fall suñu borom ko fu loolu te ànd lépp loo xamante ni bëgg na koo liggéeyal sëñ Touba rek mu liggéeyal ko ci ndigal bu baax ci maam ci tedd gi jaajëf ko dog yi sant nañ bu baax de wax dëgg fa yàlla macha allah affaire neex na mucc na lii daal dañ koo namoon daal dañ koo namoon lii nii ndax xam nga mbas mi fi jaaroon nag yu demee noonu moo nu tere woon a am lii nii daaw mais instant ni moom kontaan nañ bu baax a baax ndax gis nañ boo Baye Fall yi ñu gëjoon a gis yëpp liñ namoon daal def nañ ko daal dëgg fa macha allah daal macha allah. kon da koy wuute naag 2021 yi moom wuute naag moom wuute nañ trop sax kay yi moom instant yi kontaan nañ si lool Baay Faal yi nga gëj a gis yëpp ngay gis instant yi nii waaw. yi moom macha allah 2021 wuute naag 2020 ñu ngi koy dund bu baax di gën a bëgg Cheikh Ibra di ko gën a yaakaar di ko gën a doyloo di gën a xam màggam gi nag waaw ndax lii moom doy na sëkk am lii moom ko xool rek xam ne Cheikh Fall moom moronte kenn. barki maam Cheikh Fall ñu ngi am mbégteeg contentement nag ñun Baye Fall yëpp waaw jaajëf. ndogu yi moom ca kaw ca kanam rek nan ko daan defee nu ko rew lan koy defee sëñ am ni xadi nag yàlla na fi yàgg lool Fall Fall Fall may sax te wér loolu dong lan koy ñaanal sunu mbégte ci moom dafa ëpp suñ cofeel ci moom ëpp na yàlla na ko yàlla sunu borom gën a kàttanal dooleel ko moog sëñ Baye moo baa Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi nekkal xilaafa gi ci barke sëñ Naa Muhammad. man sëriñ bi rek. waaw di ñaan sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér moo ko rakk yeeg mag yi di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb mu yàgg fi loolu te wér di ñaanal Cheikh Modou Fall Fall moom sëñ Modou Aminta Fall na fi yàgg taw yëf yi moom neex na lool sant sëñ bi rek lañ fi nekkee barke Cheikh Fall. ndax liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall moom amul dellu ganaaw lépp loo ko jëfal na la leer ni bu dee benn da nga am téeméeram moo waral nu gën a passeefu gën a laxasaayu nun waa kër sëñ Fallou Fall moo Modou Aminta di ci góorgóorlu fu nu toll di ci góorgóorlu fu nu toll lépp lu nu man ren ñoo ngi ñaan bu déwénee ñu man lu ko fuuf di ñaan ci doole Cheikh Ibra Fall lépp luñ ci def rek yàlla na ko Cheikh Ibra Fall nungu fépp fu nu toll ren rek yàlla nañ toll fu ko raw déwén lépp loo xamante ni bii sunu borom dogal na ko ci taalibe yi tamit muy xeeti tawat wala xeeti ñàkk wala xeeti lu mu doon ci jafe-jafe rek yàlla na tegg ko ren ci doole maam Cheikh Ibra فل فليقف لا لا Jagabah la la la